addiye ji nga xam ne at mu jot waa daaru salaam dañ koy dajale jébbal ko ki fi nekkal Serigne Touba daal di yeeslu ci moom addiye jooju ci atum 2020 bi jébbal nañ ko ci talaata ji xalif général de mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñu xayma ko ren ji ci million cent 130 mille 900 francs Serigne Cheikh Anta ñëw fekk xalif général des mourides ci kaw Kaolack ànd ak njabootu ko boroom gaawaan gi ñu ñëw jébbal addiye jooju ni nga xam ne at mu jot noonu lañ koy defee xalifa général des Mourides. ñu ngi yeesalaat seen pas-pas di yeesalaat seen laxasaay lii nag xeeb nañ lool li nu andi nag xeeb xeeb nañ ko lool de xeeb nañ ko. bu doon bu doon téeméeri mën na ko def ay milliards. alhamdulilah. alhamdulilah. gën gën a gën a gën a gën a lool ndax euh, euh, euh, jombali wuñ leen dara ci lu baax tey ak ëllëg <laughs> loolu mooy sunu mooy moo moo nu war suñu diggante ak sëriñ bi suñu diggante ak yéen waaye nag waxtu maa ngi fàttali ne ci yéen la bokk foofu la jóge mu ne waxtu mu ne dañuy fàttali ne ci ñun la bokk ndax foofu la jóge woon loolu loolu gën gën a cant bu mooy mooy moo moo dolli ci li mu war a sante waaw nee na kooku mooy dolli ci li mu war a sante sëriñ bi daa wax ne jataay bii nga nuru lu gàtt ci yow ma nga la cey waxaat rek la maam Cheikh waxoon sëriñ bi ba ko fekkee gaawaan da ko ne woon amoog jot ca yow foo def at ak foo def seen saa ñoo yem faj aajo la tax a ñëw fajal say fajal suñu aajo rek te ba la tubaat nee na yow xam na ne amoog jot te loolu rek a fi nekkaat nee na nga faj aajo yi rek. foofu rek lañ koy delloo <laughs> nee na rek dañ koy delloo. noo ngi sant sëriñ tubaab bu baax di sant Serigne Mountakha bu baax dañ fay ñëw ci turu Darou Salaam gépp li ko tàmbalee ci sëñ Mor mi xalifa maam Cheikh ak sëriñ Mbacke Anta rakkam ak njabootuk Alaaji Sëñ Tàkku gépp ak njabootuk maam Cheikh Anta gépp ak ci turu Serigne Abdou Khadir Serigne Jili ak Serigne Abo rakkam ak njabootuk sëriñ Modou Mamoun gépp ak Darou Salaam gépp eh, bi ñuy ñëw itam dañoo dañuy ñëw di yeesalaat sunu pas-pas di yeesalaat sunu njëbbal bi nu ñëwee sëñ bi jiitu nañu ci loolu wax nu ne maa ngi yeesluwaat di leen yeesluwaale di ànd ak yéen tam ci yeeslu bi. dañ fi mujjee daaw nu sax di joxe ab lim joxe addee di ko tudd gënaluñu waaye réseaux sociaux yi ak seen yi ngeen yor. tax na ba kenn mënatu koo nëbbu waaw indi nañ daal lu ëpp lañ andi woon daaw andi nañ cent quatre-vingt-onze millions yu teg cent trente mille ak neuf cent francs loolu lañ andi ren te xeeb ko lool di ñaan di ñaan yàgg ko andi nag te ku yàgg fi fekk sëriñ bi yàgg ko koo jox lool lan ko daan def nag lan ko daan def ren dañ ko gën a bëgg woon koo suturaal moo tax defuñ ko ci gaal waaye dañ ko daan def ci gaal boole ko almet waaye len almet ga moom lam ci lam ci daan jëriñ mu ngi koy jëriñ ba tey bu ko sëñ bi lakkoon tey jii ne nu lakk naa ko bu subaa nu tàmbaliwaat ñëw andi ko kon noo ngi sant ñëpp taalib yi nga xam ne ñëwoon nañ ci woote bi wuy si ñëpp sëñ bi yëg na ko sëñ bi sant na leen sëriñ tu sëñ Muntaxa mooy sëriñ Touba te fu taalib bi nekk sëñ Touba ngay liggéeyal. kon nag taalibe yi li ñu doon liggéey nañ xam ne agsi na ci sëriñ bi toll na ji téeméeri million ak juróom-ñeent fukki million ak benn ak ñaar fukki junni euh, ak fanweer yu tegal jërë ngeen jëf ñoo ngi sant ñëpp bu baax. addiya ji nag daaw ñu ngi ko xayma woon ci 172 millions de francs CFA ren jii ñu yokk ko yóbbu ko ba ci 191 millions 130 mille 900 francs.